ku aayewal sa moome de mën na ni wax na ñoo moome tey critique yéene kaay naan tey lañuy ñuy sargal jigéen yéene kaay bi naan rendre hommage suñuy yaay suñuy soxna suñuy doom laas yéene kaay naan nu ñu taaroo noonu la ñu xamee seen bopp mën a dëggal seen bopp yéene kaay bi naan moo taxit président Macky Sall taxaw ci tànk charne wu leen le soleil naan kaay ma wax la président Macky Sall lan la leen defal démb laas yéene kaay naan seen leadership kenn du ko laam-laamee réew mi tribune yéene kaay naan ku xàcc jëmale sa kanam mu dal yi tey jii leen ñu moomee yéene kaay naan jàmbaar fàq tëdd dëgg yàlla samp mbaax ndax bu leen fàtte ne diggante juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeri mars ña nga doon ko jigéenu talaatay ndeer ni ki démb tey jii ñu nar a jigéen ni àddina war ngal këpp turbine yéen kay naan ma Sénégal njaay jigéen yàgg na fee def jaloore jur fi ku nekk def fi lu nekk muñ fi lu nekk am fi lu nekk group des médias naan ma xoolal ma maam jaara buso si Sitoyo Diatta maam Fawade Wele maam Astou jànq maam Kumba Ndoye ba ci soxna Mariama maa xam nga ne lu fi góor ama jigéen moo ko ko may ndax moo quotidien naan ma moo taxitu ñu ngi ko aaki moo jël lépp ba tax nañu dugg ci lii ñu naan féministe yéene kaay bi naan ma féministe bi dee du lenn lu dutu fu góor nekk maa mu mën koo def jigéen mën na koo def ndax ñaari loxo mooy takk tubay katt te mooy takk sër ubbil yéene kaay yi mi ngi naan jigéen yaa nga ca wàll jënd ak njaay ma de ña nga ca dóor dàqi ba le point naan ma boo ko weddee demal ba fooji ak liggéey bu am solo bu fa mari Thérèse fay def di dëggal ak i fësal bëgg-bëggam ci président Macky Sall si jàppale soxna ak i ndaw yam fa nekkee l'observateur naan laalal azapes tur bi Aïssatou Cissé lu ñu mën a wax te tàq lu ñu soxna yi ak violence ak aada ak cosaan bi nga xam ne mi ngi leen di indi ay gàllankoor ki jafe-jafe ci réew mi Emmanuel Jallet naan ay modèle lañu ay royukaay lañu Bougane Gueye Dany ci yéen kaay naan dëgg la ndax yenn saa yi yéen a ngi ci souffrance yéen a ngi ci njàqare yéen a ngi si tiitaange waaye soxna Sénégal lu ma leen mënta xamal mooy dundee leen yaakaar te yaakaar bii du mës a tas ndax suñuy soxna ak suñuy doom saa yu leen gisee ree ndax idée ak partage si yéen la samp lii di yar njaboot gi ak taxawu kër gi kat si la gàcce ngaalaama yéen kaay bi naan lu ñu doon doon ay jàmbaar léeg-léeg ñu tumuranke yéen kaay bi naan demal ba bopp cooro jigéen ñi amuñu courant ndox structure sanitaire amuñu marché amuñu dara soxna si nee na day yenu lu toll ci téeméer ak ñaar fukk bi bidon saa su nekk tax keroog ba mu noppale ko ëmbam daal dal di tuuru te naan ba tey coono boobu mooy gën di wéy le soleil naan kon lu tax président Macky Sall naan soxna yi doxal leen réew mi agence nationale ci la woote démb de te tey jii lay amal conseil des ministres président Macky Sall war faa jël ay dogal yu nga xam ne war naa soxal lii di jigéen ginnaaw bésu jigéen ñi ñuy wax ci leneen tribune yéen kay naan AIBD daal tabbu neen ko mu nekk meilleur aéroport bu Afrique ci catégorie yu bari l'enquête yéen kay naan politique bu Sénégal de ay révélation da cee bokk ndax yéen kay bi mi ngi naan Ousmane Sonko Hadjibou Soumaré Bougane Gueye Dadi ñu ngi naan quatre-vingt-dix-huit milliards yi nga xam ne fa ñu ko bëgg sàkkal pexe bu Soumaré naan mbaa du fa ko jox kii di Marie Le Pen docteur musa Diop naan ah ay risque nga ca de direct news naan ma daanee lal ma wax la suñuy doom lu ñuy dund ca ay jafe-jafe ki toroxala ki tumuranke moom la ñuy dund di ko teg ci seen der bi ñuul di ay étudiants sénégalais ak i africain toroxal bu dut bu junne rek ñu ngi leen koy def loole nag tax na ñuy ñaan nguur gi ngir mu jël ci dogal ak lu ci mënta am daal ñu ngi ñaanal jigéenu sénégalais yépp bon fête